karim def ay istixfaar ngir suñu borom wàccee jàmm ci biir réew mi wàcc ko itam ci mbooleem réewu jullit ñi fu jullit mën a nekk ci àddina bi ba tax na daayira muxaddamatul xidma ànd ak waa rabitatul madarisil quraaniya muy kuréel gi nga xam ne moo ëmb daaray alxuraan yi ci biir Sénégal ñoom itam nga xam ne taxawaayu alxuraan ci seen loxo la nekk ci njiitul sëriñ Maam Mor Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu aju ci njàngum daara yi biir euh, dëkk bi euh, sëriñ bi moom la ko teg ci loxoom ci njiitam moom itam mu agsi ci biir jataay bi ci biir juróom-ñetti waxtu suba jotee ci huit ci lañu tàmbali liggéey bi mbooleem daara yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi euh, daje fii ci jumaa yi Touba ngir taxawee ndigal loolu nga xam ne Cheikh mun Mountakha joxe na ko ci njàngum alxuraanul karim bi sëriñ Cheikh Mamour moom Cheikh Fadl agsi na xam naa ci kanam tuuti dañ ko jox kàddu gi mu gën a leeral ndigal loolu fan la jógee waaye itam ñu bàyyi xel ne daayira Muxaddamatul Xidma ci organisation jumaa ji andratul madaarisul quraaniyya ñoom itam dañ leen gis ñoo itam yëkkati seen kàddu ci turu seen Abdou Abdou Abdou Ahad Bousso Fall mi nga xam ne secrétaire général daayira Muxaddamatul Xidma dañ ko jox kaddu bu ko defee moom itam mu leeral ndigal li ni mu ñëwee ak ni ñu ko war a taxawoo ci biir jumaa ji taxawaay biñ ci war def waaye itam dañ jox kaddu seen Serigne Mamour Mbacke moom Cheikh Mouhamadul faadal moom itam mu yëkkati ay kàddu ci